ok alhamdulilah wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain ngi yeesal santaat suñu boroom di dajawaat ci am néegam fa fii ni jël benn bind ci liy leeral suñu diine ñu koy tuddee fiq ñu ci sukkandikoo ci téere bi di risaala boo ibn abi zayd alxayrawaani ñu yegsi woon ci li nga xam ne mooy ñeen fukkeelu bunt bi di baabun baabun jumalin min alfaraid jëloon nañ ci ay bind ba waroon na yegsi ci la nga xamee ne ni mooy wal fitru fi safari ruxsatun su dee da nga yor mool bu bees bi moolu français bi xonq bi yaa ngi page cent onze ca suuf bu dee da nga yor samru daani bi yaa ngi ci six cent cinquante quatre nga xool rek ci la nga xam ne mooy troisième ligne ba da nga fa fekk mu naan wal fitru fi safari ruxsatun wal ixsaaru fihi waajibun mu ngi noonu wal fitru fi safari ruxsatun wal iq wal mu ngi noonu ixsaaru fihi waajibun kon tey jii mooy la nga xamee ne nii mooy fukki fan ak ñaar ci jumaadal ula muy rakkaati gàmm di tombeeg le 27 décembre ci 2020 bi su dee bokk nañu gis mu ne wal fitru fi safari ruxsatun ngay tukki dog sa koor day loolu ak yombal la ku ñu yombal koo xam ne dañ koy toléré wal iqsaaru fiihi waajibun waaye nag wàññi julli ga moom loolu moom wareef la wa rakatal fajri min arragaib ñaari rakkay fajar bokk na ca yañi xemmem loo wa qiila min assunan am nañu ne loolu ci sunna ya la bokk wa salaatu duha naafila jullig yoor yoor loolu naafila la wa kazalika qiyaamu ramadan naafila taxaw ci guddi weeru koor loolu it naafila la wa fiihi fadlun kabir doonte ne ngëneel yu rëy ma nga ca wa man qaamahu imaanan wa ihtisaaba koo xam ne da koo taxaw ci ngëm yàlla ak ci yaakaar fay ca yàlla gufira lahu ma taqaddama min zanbi dees na ko bàllam jiitaloon tey bakkaaram walqiyaamu min alleyli fi ramadan taxaw ca guddi ca ramadan wa gayrihi ak leneen lu dul ramadan min annawaafil bokk na ca naafila ya almuraghabun fiha yoo xam ne dañ koy xemmem lool lool kon mbokk waxoon nañ dimanche passé ne bunt bii mu la ubbil da lay tënkal loo xam ne jàngaloon na la ko ci téere bi waaye mu la koy tënkal ngir fàttali la ko bokk na ci loolu mu ne yow mi nga xam ne da ngay tukki islam may na la nga dog sa koor may na la nga dog sa koor bu la neexee woor bu la neexee bul woor boroom xam-xam ya nag am nañ ixtilaaf ci ndax wóor moo gën wala dog moo gën wante ne bokk na la gën a not mooy bu dee koor gi du la indil benn jafe-jafe nga woor moo gën amma bu dee tukki bi metti na mettaay boo xam ne koor gi dalay lor nga dog moo gën da ngi noonu beneen bi mu ne nag waaye wàññi julli moom wareef la ca ki nekk ci tukki gée ñaari rakk la koy julli tisbaar ñaar takkusaan ñaar mu ne loolu waajib la waajib la mooy loolu nga war a def waaye nag nekkul ci ni soo defee li leen julli gi day yàqu déedéet la gën daal mooy wàññil julli gi lu dul ne am na ci lenn ci borom xam-xam yu ne ñaari rakka rek nga am droit julli am na bañ koy jàng indi woon nañ cay tegtal waaye daal liñ lay wax mooy heure booy tukki xamal ne la gën ci yow lay sunna ci yow mooy wàññil sa julli lu dul ne nga dem ci mbooloo ma ci gannaaw imaam foofee moom la gën mooy nga ànd ak ñoom la gën nga ànd ak ñoom ci julli gi matal sa julli amma bu dee sa julli bopp la gën mooy nga wàññi ko mu ne la nga xam ne mooy ñaari rakka yi nga julli ca fajar loolu ci raxaib la bokk dañ koo xemmem loo xam nañ ne naafila soo dellu woon ci borom xam-xam bi rawatina mazhab Maalik dañ koo séddale ci la nga xam ne mooy ñeent partie am na benn luñ naan la sunna la sunna mooy loo xam ne yonent da ko saxaloon di ko def ñu ngi noonu ñaari rakka avant tisbaar ñaari rakka après tisbaar ak yu demee noonu ñu ne lii sunna la léeg-léeg ñu ne mu akkada la mu akkada mooy loo xam ne yeyul ci jullit mu koy bàyyi gannaaw ba am na lu ñuy tuddee ragaib mooy yoo xam ne dañ caa xemmeem loo mooy yonent bi dañu lii de ku ko def da nga am nangam masalan nee na ku julli ñaari rakkay fajar tuyaa ba jëm ci ami moo gënoon ñu may ko àdduna ak li ci biiram loolu it ku nekk ci ñun war a bàyyi xel sharia ni muy peser àdduna boo ko àdduna ak li ci biiram boo ko moom moom it wax dëgg yàlla fii ak téeméeri at amatuloo la benn njëriñ am ma ñaari rakkay fajar lam lay jëriñ allaaxira yonente bi alei salaam nee na ñaari rakkay fajar nga julli ko yool ba ca nekk moo gënoon nga xëy ñu ne la yaa moom àdduna ak li ci biiram kon it ka nga xam ne sànq na ko kookee mbokk ñàkk na lu ëpp àdduna ak li ci biiram mi ngi noonu gannaaw ba am na lu ñuy tuddee li ñu tuddee al mustahabaat mooy yoo xam ne dañu ko sopp ñu koy def mi ngi noonu lu mel ne ñaari rakka yi yoor yoor yooyu dañ koo sopp ñu koy def am na nag lu ñu tuddee naflul mutlaq mooy naafila boo xam ne yow daal yaay tànn la la ci neex nga def ko ci ci ay naafila yoo xam ne lépp loo xam ne terewuñ fa ñu julli bu la neexee def fa fukki rakk ak juróom-ñett yaa xam loolu ay naafila mutlaq la koor yi naka noonu boo xëyoon woor mardi mercredi loolee amul fu la ko sunna day tegtale waaye maadaama sunna yoonal na koor ci terewul ñu woor ci bis yooyu loolu day nekk naafile bu ñu boyal loolu kon la ñuy wax mooy sunna yi al ragaib yañ xemmem loo la nga xam ne nii moom la ñuy tudd al mustahabaat yañ sopp ak la nga xam ne dafa nekk rek al naflul mutlaq mu ne bokk na ci loolu la nga xam ne nii moom mooy julli yoor yoor julli yoor yoor mi ngi commencé fi jant bi fenkee ba def à peine ay quinze minutes fa la yoor yoor di commencé ñu dem a dem ba tisbaar di waaj a jot loolu mooy yoor yoor heure boo fa jullee julli ngi dañu tuddee julli yoor yoor nga xam ne li ci gën a néew mooy ñaari rakka daanaka fa mu yem moom amul fu mu yem loolu mi ngi noonu bokk ci tuyaaba yoo xam ne it tuyaaba yu rëy la taxaw weeru koor naafila la yéen ñëpp xam ngeen ko yonent bi alei salaam mu ne day tax yàlla baal la say bakkaar te mooy bakkaar yi nga xam ne bokkul ak kabair boo déggee ñu ne ko def lii yàlla baal koy bakkaar loolu mooy bakkaar yu ndaw ya moo tax yeneen aaya yeneen xadis yonent bi alei salaam ne maa lam tuxshal kabair diggante julli juróom day far bakkaar yi ajjuma ba ajjuma day far bakkaar yi weeru koor day far bakkaar yi fii ak defoo kabair kabair moom tuub spécial rek ay tax yàlla bal la ko loolu mi ngi noonu amma taxaw guddi di naafila loolu it da ngay gis ne soo delloo ci téereb yàlla bi aaya yu dul jeex suñu borom ma ngi ciy xemmem lu nit ñi تتجافى جنوبهم عن المداجع يدعون ربهم خوفا وطمعا suñu borom nee na ñi bàyyi guddi seen lal taxaw di naafila ca fin ba mu ne fala taalamu nafsun ma uxfiya lahu min qurrati ayunin benn bakkan xamul li ñu leen dencal kon yi ay mbir la yoo xam ne dala koy fàttali ca ñu jàngoon ko ca bopp téere ba su dee dañuy jël beneen benn mu ne والصلاة على موتى المسلمين فريضة julli ca kaw néewi jullit ya day farata la waaye nag yaxmiluha man qaama biha dana ko yenu ña nga xam ne ñoo ko taxawe wa kazalika muwaaraatuhum bi dafni naka noonu it denc leen ci suul leen wa gusluhum sunnatun waajiba am ak la nga xam ne nii mooy sang leen nag sunna la boo xam ne bu war la wa kazalika talabul ilmi bokk na ca loolu lii di sakku xam-xam faridatun amma farata la bu ëmb mbooloo mi yépp yaxmiluha man qaama biha dana ko gàddu nag ka nga xam ne moo ca taxawi illa man yalzamu rajul illa ma yalzamu rajul lu dul loo xam ne dafay lënkoog nit ka góor ga na doon jigéen nit fi xaasati nafsihi te la nga xam ne mooy jagleeg bakkanam mi ngi noonu mbokk day wax kon julli néew farata la waaye nag fardul kifaaya la fardul kifaaya mooy loo xam ne daa wër dëkk bi yépp su dee am na ñu jóg taxawe ko bàkkaar bi wàcc dëkk bi yépp su dee dëkk bi yépp dañoo seetaan bàkkaar ba nekk ci dëkk bi yépp mu nekk kon fardul kifaaya bu jullit faatoo ñu daldi koy jullee daldi koy sang daldi koy suul donte ne moom mi ngi naan sang bi dafa nekk ci sunna yu ñuy feddali waaye boo dellu woon ci jumhurul ulama ñoom dañ ne déedéet ñeenti farata la sang bi farata la sang bi farata la jullee gi farata la suul gi farata la su ko defee lii lépp nag ku ko féetewoo da ngay koy gàddul ña ca des yi ngi noonu bokk na ci la nga xam ne mooy sang néew yonent bi alei salatu wasalaam nee na koo xam ne sang ne néew suturaal ko waxulu ko dara lu mu ci gis daañ ko jagleel ñeen fukki jéggal koo xam ne nii fekk ne fu ñuy jullee néew dana am yool montagne bu toll ni ba nekk ca Madina boo fekkee fu ñu koy suula it naka noonu loolee kon lay wax ne lenn la da koy gàddul la ca des gannaaw ba mu ñëw ci sàkku xam-xam mu ne loolu farata la bu war mbooloo mi mooy société bi buñ ci nekkee wareef la mu am ñu dem jàngi xam-xam nu ñuy def ba mën a jàngale alxuraan ji wér nu ñuy def ba dégg téere borom bi ci tafsir nu ñuy def ba jàngi fiq la nga xam ne moo aju ca atte ya miraas ak yu deme noonu loolu bu dee dëkk bi am na ay ñoo xam ne jóg nañ jànge ko ba ku am lu muy laaj dem laaj leen loolee wàcc na dëkk bi yépp su dee dëkk bi kenn jàngiwu ci xam-xam yooyu waa dëkk bi yépp dañuy ànd ak bakkaar allahuma lu dul doomu aadama bu nekk am na xam-xam boo xam ne wareef la ci moom mu jàngoo ko mooy li nga xam ne mooy farata ya ko war masalan julli li aju ci julli góor ak jigéen ñépp a ko war a jàng wala yonent bi alei salaam di wax naan talabul ilm faridatun ala kulli muslimatin wa muslima mi ngi noonu amma mooy ni ñuy jullee la aju nag ci ahkaam yaag bu yàqoog kaza wa kaza yooyu am na ci yu xóot yoo xam ne su amee ñu ñu koy laaj doy na naka noonu lépp loo xam ne da nga faa féete war ngaa xam atte yoo ca nekk ki jógoon jullit dem di commerce wareef la ci moom mu laaj nan la lislaam gisee liggéey bi muy liggéey lan moo ca nekk lu dagan ak lan moo ca nekk lu xaraam ba bokk na ci liñ daan nettali ci siira Omar ibnul Xataab daan di dem ci marché bi gis benn waay ubbi magasin mu laaj ay question ci ribaak ci peseeg ci lebleeg ci yooyu ba fu waa ji nekkee di nakk nakal mu ne ko da ngay tëj demal jàkka ja nga jàng loolu lépp doo ko ñu ubbiwaat gis ngeen loolee kon it noonu la lépp loo xam ne yàlla natt nattoo na la ko war ngaa xam atte yi ca nekk même bu dee wàllu sëy atte ya góor yoral borom kër yoral soxnaam soxna si yéen ak yéen àq la yoral borom këram yooyu yépp ku nekk la nga xam ne dafa jagoog yow war nga koo xam amma nag bu dee xam-xam général loolu moom bu amee ñi ci féetewoo rek loolu day doon loo xam ne nii lu baax la kon mu ne wa fari ñu jël beneen bind mu ne wa faridatul jihaadi ammatun faratey jihaad it dafay doon loo xam ne dafay war mbooloo mi yépp yaxmiluha man qaama biha waaye nag dana ko gàddu ña ca taxawe ca mu doy illa an yaxsha al aduwu mahallata qawmin lu dul nag mu attaqué noonu lislaam dëkkoog benn ci xeetu jullit ñi fa yajibu fardan alayhim qitaaluhum su boobaa day war muy farata ci ñoom ñu jóg xeex ak ñoom ida kaanu mislay adadihim su dee noon ya dañoo yem ci nekk duubulu waa dëkk ba wa ribaatu fi suhuuri almuslimin nga dem nag def la nga xam ni moom mooy ar ribaat te mooy garde frontière jullit ña ca la nga xam ne mooy bunt yaka noon yi mën a jaare wa sadduha fekk loolee ba kenn du fa dugg waxyaatatuha ak aar ko it ba kenn du fa dugg waajibun yaxmiluhu man qaama bihi loolu lépp farata la ay wareef la ña ca taxawe daañ ko gàddul ña ca des kon mbokk day wax ci jihaad mooy génn dem jihaad fi sabilillah loole da ngay gis ne bu dee am na ñu ca taxaw day wàcc ña ca des te jihaad du mën a nekk lu dul julit ñi amoon njiitu julit mu am kàttan ci jihaad borom xam-xam ya seet ba xam ne war naa mën a dem jihaad su boobaa bu dee am na mbooloo mu ko topp ña ca des moom wàcc na leen lu dul nag ne dëkkub jullit ñi la ay noon ñëw attaqué ko su boobaa moom duñ ne farata la ci ma sàmba wala ma demba bal góor ak jigéen ñépp a war a jóg xeex ak noon boobee ba génne ko dëkkub lislaam fii yëg yëg nañ ne kat noon bi paasewul duubalu waa dëkk bi masalan te ji dëkk bi kat ñu xool ne ah am na junni nit ñu fi yeewoo am na junni nit ñu fi yeewoo léegi ay noon attaqué leen bi ñu leen attaqué ñu gis ne ñoom kat ñaari junni nit lañu su boobaa waa dëkk bi amuñu droit di daw dañoo war a taxaw xeex ak ñoom te loolu la ñu yàlla wax ci alquran in yaku minkum miatun sabiratun yaxlibu miatayn su ngeen amee téeméeri jullit yu muñ war nañoo mën a duma ñaari téeméeri yéeféer amma buñ gisee ne li mu noon yi ëpp ne dëkk bi ñaari yoon su boobaa suñu dawee dara nekkul ci loolu ñu ngi noonu mu am jaamu yàlla gu rëy mooy ay ndaw ñoo xam ni dañuy dem ca frontière l'islam daal di koy protéger ba nga xamee ne noonu l'islam yi duñu bett mukk jullit ñi loolu la ñuy tuddee ribaat loolu nag da ngay gis ni ci mbir la yoo xam ne jullit ñi dañ ko war a am fokk mu am ci frontières yi ñoo xam ne ñooy taxaw di ko garder su dee am nañu ca taxaw wàcc na dëkk bi yépp waaye jullit ñi it bu ñu bàyyee noonu rek seenub dëkk amul fenn benn garde frontière buy am ñoom ñëpp dañ ci am bàkkaar loolu it muy wane ne ak a neexoon suñu militaires yi ñu yaroon leen ci yarul islaam ñu xemmeem xemmeem loo leen la nga xamee ne nii moom mooy payug yàlla ca loolu bu doon te ne yéene bi sell na amul benn militaire bu nekk ci caserne nga xam ne sa yéene mooy yow kon yaa ngi fii ngir sa mbokk jullit ñi képp ku ñëwoon pour attaquer leen pare nga pour jàmmaarloo ak moom mbokk loolee même buñ tëddoon di nelaw des années it tuyaaba ju rëy la joo xam ne da leen di ñeel ca loole loole ñu bàyyi ko xel bu baax su ko defee fu dee dañuy dañuy jëlaat beneen bind mu ne wa sawmu shahri ramadan woor lii di weeru koor faridatun moom day farata la wal i'tikaafu naafila nga def i'tikaaf nag loolu day naafila la goo xam ni moom du farata ak coobarewu la wa tanafulu bi sawmi muraghabun fiihi jóg nag di naafila ci koor loolu day lu ñu xemmem loola lool wa kazalika sawmu yowmi ashura bokk na ca woor bi su ashura wa rajab ak woor ci weeru ndey koor muy rajab wa sha'ban ak woor baraxlu wa yowma arafa ak bisu arafa wa tawriya mooy bisu juróom-ñetteel bi mooy bis bi jiitu bisu arafa wa sawmu yowmu arafa bu dee woor weeru arafa nag li xëyri lxaaj loolu ma ngay ñeel ñi ajiwul afdalu minhu moo gën ñeel ko lil xaaji amma bu dee kay aj moom loolee nekkul ngëneel ci moom kon mbokk day wax weer weeru koor farata la te daa bokk ci farata yoo xam ne jullit amul droit réere ko jullit amul droit réere ko mi ngi noonu loolu di mbir boo xam ne nii xanaan dul nga doon koo xam ne nii ku nekk ci ay dëkk yee féer waaye jullit kenn amul droit yi réne weeru koor farata la gannaaw ba itikaaf itikaaf jàngoon lañ ko ci bopp téere ba mooy nga yéene lu mu néew néew bu doon benn guddee am na borom foo xam yu ne il faut mat vingt quatre heures nga xam ne da ngay féetewoo ca jàkka ja yonent bi alayhi salaatu wasalaam koor yi mu woor mag madina yépp fukki fan yi mujj yépp te jàkka ja la ko doon def ba mu fi jógee ay soxnaam continué loolu ba jeex muy def itikaaf gannaaw ba loolu it nga coobarewu ci koor loolu lu ñu xemmem loola lool gannaaw weeru koor ba ci gën a màgg mooy sawmu daawut mooy woor tey ëllëg nga dog bokk na ci di woor lundi jeudi wala nga woor lundi kese wala jeudi kese bokk na ci nga woor ñetti fan ci weer wu nekk ak noo ko mën a wooree yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daana woor lundi bi jëkk wooraat yeneen ñaari alxames soo ko dëppale woon it ci ayamul biit mooy la gën muy treize quatorze quinze comme ni ñuy koy séentoo suba mi ngi noonu yooyu yépp da ngay gis ne ay koor la yoo xam ni dañ cee islam da ko xemeem loo amma bu dee yow mu ashura loolee moom da ngay gis ne yonent bi alei salaam ne ne ku ko woor yàlla dana la baal bakkaari at bi nga génn bu dee weeru a bu dee bisu arafa dana la yàlla baal la at mi nga génn ak at mi nga dëgmal bokk na lu ñu xemmeem loo it mooy di woor ci rajab ak shaaban doonte ne bari ñi suñuy mag ni ñu ko jànge ci risaale bi nii ñoom ñetti weer yépp la ñuy tegal rajab shaaban ak ramadan waaye loolu gis ñu ko woon ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam suñu Aysa nee na yonent bi alayhi salaam musul woon benn weer ba mu jeex lu dul ramadan kon dañ naan rajab day waxtu woor la lu ci ay man mu woor ko ca shaaban mi baraxlu waxtu woor la lu ci waay man mu woor ko ca amma woor weer ba ñuy woor bu mat sëkk loolee ramadan la mbokk mi ngi noonu xam naa comme ni ñu ko doon waxee it comme jot nañ jël bind yu bari dañ bàyyi mbokk yi bu dee am nañ lu ñuy leerlu ci bind yi ñu jot a jël bu dee yeneen question yu bokkul ak bind bi ñu bàyyi ba dars bi pare mais bu dee li ñu jot a jël daal am na ci loo xam ne lu nit ki doon leerlu incha allah waaw bismillah waaw pour lu ñuy jàng ci ñaari rakkay fajar la nga xamee ni nii moo ca ëppoon mooy li abi hurayra netti li ne yonent bi alei salatu wasalaam daana ca jàng qul ya ayuha alkafirun ak qul huwa allahu ahad mi ngi noonu doonte ni léeg-léeg it daana jàng ay wax naan qul amanna billahi wa ma unzila ilayna ñaareelu ràkka bu mu jàng ca qul ya ahlal kitab taalaw ila kalimatin sawain baynana wa baynakum lu dul ne suñu yaay Aysa nee na yonent bi alayhi salatu wasalaam day léeg-léeg daana jóg kabbar ñaari ràkkay fajar man dama naan mais ndax fatiha bi sax mat na looloo tax it borom xam-xam yi dañ naan ñaari ràkkay fajar bu la neexee fatiha kese nga cee jàng ci ñaari rakk yépp te it loolu dana doon loo xam ne lu baax la wallahu subhanahu wa taala aalam naam naam noonu est-ce que waaw ci day day est-ce que jàngoon nañu wàllu xusuli duxuli makka ah ah waaw kon bu ñuy jëlaat bind dinañ ko jël insha allah wala ñu jël ko rek bala ñoo continuer ci question yi mooy ah non non mi ngi ci kaw mooy li li li ñu kii mais man dafa mel ne xanaa kon dañ ko mais est-ce que lii jànguñu ko woon wal jamu laylatul matr taxfif wa qad faalu al xulafa ah jànguñu ko ah ah waaw ko da ngeen ko mi ngi waaw kon léegi xool leen fi ñu yemoon wal fitru fi safar boo xoolee ci kawam tuuti yaa ngi fekk ah waaw mooy wal xusli di duxuli makka mustahab wal jamu laylat al matri boo xoolee ci gannaaw rek da ngay arrière tuuti ndax lañ ko tëboon waaw bu dee gis nañ ko daal day wax ni wal xuslu li duxuli makka mustahab yow ma nga xam ne da nga jëm makka nga dem ba buntu makka nga sangu loolu ye sopp nañ ko ca loolu mooy la nga xamee ni nii jamono yiñ daan war ay gileem ak di dox buñ daan dugg makka dañ daan ànd ak tilim ak ñaq ñu sunnaal ñu daal di sangu donte ne illa ba taxoon même bu teggee ko it sunna bi moom mi ngi fi koo xamee ne mën na ko def ko waaye da ngay gis tey yow fi ngay ihraame ak fi ngay duggee màkk daanaka ay heure rek moo fay dox bu jëkk nit ñi buñ masaan ihraam daanañ def lu jege une semaine dix jours wala lu ko ëpp sax avant ñu yegg màkk ci bëri diggante màkk ak Medina dañ ko dox lu jege ay quinze jours kon mi ngi noonu amma bu dee bind bi ci topp mu ne wal jam u laylatal matr ñu boole julli timis ak gee ca la nga xamee ni nii mooy bisu taw lool dee tax fiifun ak wayefal la gu yàlla maye wa qad faalahu xulafaw rachidun xulafaw rachidun ñoom ñépp ci seen jamono boole nañ timis ak gee ca jàkka ja wal jamu bi arafa amma nga boole tisbaar ak takkusaan ca arafa wal muzdalifa boole timis ak gee ca muzdalifa sunnatun waajiba loolu moom sunna la bu ñuy feddali bu ñu waral te moo dina jullit ak loo tarde tarde tisbaar ak takkusaan da nga koy boole julli ci arafa timis ak géey même bu doon da nga faa yegg si minuit it timis gi doo ko julli lu dul da ngaa yegg musdalifa nga boole ko ak géey gi mu ne wa jam'ul musaafir fii jiddi sayri ruxsa tukkikat bi boole ay julleem bu dee dafa tege ci yoon di dem di étape di dem loolu yoon la guñ ko mayal mi ngi noonu amma wa jam'ul marid naka noonu it ki nga xam ne daa feebar yaxaafu an yaxlaba ala aqli mu ragal ne kat man balaa waxtu jotaat sama xel mën naa teqali ko ak man taxfiifun wayefal nañ ko mu boole ñaari julli yi ca la ñu mën a boole paasewul tisbaar ak takkusaan ak timis ak gee leneen lu dul loolu kenn du ko boole wa kazalika jam'uhu li illa naka noonu it heure boo xamee ne nii mi ngi boole ngiree loo xam ne nii lor la guy dal ci moom même ba ragalul teqale ko xelam waaye du am kattan ci toujours di jóg di jàpp ko julli fa yakunu zalika arfaq bihi loolu mooy nekk loo xam ne mooy gën a woyof ñeel ko kon loolee kon mbir la bu ñu tëboon xam naa kon incha allah comme niñ ko waxee mbokk yi doon laaj bala ñoo dem ci leneen waaw bismillah naam ki nga xam ne dafa ñëw ci gannaaw imam fekk mu dese ñaari rakka te moom day wàññi julleem ndax bu julleeg moom ñaari rakka mën na wàññi wala kulli xaal loolu am na borom xam-xam ñu koy wax mais bu dee mazhab malik du ñu nangu loolu am na borom xam-xam yoo xam ne dañu naan ki nga xam ne mooy imaam mën naa bañ a bokk ak maamum yéene da ngaa ñëw fekk imaam mi ngi yéene mu julli ñeenti rakka yow nga julli ñaari rakka bi nga fekkee imaam def ñaari rakka nga ànd moom ñaari rakka nga sëlmal loolu am na ñu koy wax ñiy wax loolu ñoom dañ naan. am nga droit sax dugg ak imaam bu defee ñaari rakka su jógee jëm ñetteelu rakka nga toog xaar ko ba mu def ñaari rakkaam nga ànd ak moom sëlmal am na ñu yegg sax ba ne bu sa ñaari rakka matee mën ngaa sëlmal waaye loolu lépp mbokk bu dee mazhab Maalik ñoom dañ naan déedéet ki nga xam ne dafa am imaam du wuuteeg imaam kon boo ñëwee fekk imaam di matal ñaari rakk nga ànd ak moom. su imam jógee même bu dee musaafir nga da ngay jóg mottali la la koy yóbbee mooy roy ga ngay roy imam wallahu subhanahu wa taala aalam naam naam bismillah ki nga xam ne bés bu nekk dee tukki maadaama la muy def tukki lañ koy tuddee mooy dem na ba buñ d'accord rek borom xam-xam yi ne fokk mu jógee quatre-vingts kilomètres dafay jógee bu su nekk dem tukki su boobaa am na droit def ñaari rakka ba ba muy jóge ci tukki ba tukki waxuñu ne balaa moom nekk tukki diggante yi ñaari tukki yi day nekk nangami bis déedéet koo xam ne bis bu ni nga tukki it dañuy jàpp bis bu ni nga tukki allahuma loolu suñ jamonoy tey la mën a nekk mais bu doon jamono yu jëkkee mënta nekk ndax jamono yi ñu daan wax naan kii tukki fokk mu def lu jógee quatre-vingts kilomètres loolee bu jëkk tukki bi saf waruwaay yi lu ci bëri ñu ngi daan def ay trente kilomètres par jour te loolu jàmbaar yi sax ñoo ko daan def ñu ci bëri ay vingt kilomètres sinon il faut nga dox guddeeg bëccëg pour mën a franchir cinquante kilomètres looloo tax loolu mënul woon nekk bu njëkk mais tey jii ak oto yi ku ne xam ne ne ne yow une heure de temps mën nga daw cent kilomètres une heure de temps nga dellu siwaat am na ñoo xam ne deux heures de temps mën nañ dem deux cent kilomètres ñëwaat ala kulli xaal maadaama nag islam dafa maye woon ne kii génn ñu ne tukki na mooy jóge na ci dëkk ma nga jëm beneen dëkk boo xam ne nii distance yi mën na quatre-vingts kilomètres ñu ne daa tukki ku mel noonu dañuy jàpp ne attey tukki day nekk ci moom mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala aalam naam waaw ndax yaamul biit yonent bi alayhi salaam da koo saxaloon loole am na ay riwaaya yoo xam ne nii wane ne daana ko woor am na yeneen riwaaya yoo xam ne day wane ne comme ni ko yaay Aïcha nettali ñu jàng ko sànq daana woor ñetti fan ak nu mu ko woo mën a woore lu ci bëri léeg-léeg mu daan woor benn altine ak ñaari alxames wala ñaari altine ak benn alxames waaye nekkul woon ne daf ko saxaloon dakk bokk na nag loo xamee ne nii dénkoon na ko lenn ci ay sahabaam lu mel ne abi hurayra da ko del woor ñetti fan ci weer wu nekk del woor la nga del julli ñaar rakkay duha te del witre avant ngay tëdd loole ak yeneen i sahaaba it muy ngëneel muy ayamul biit waaye nag nekkul ne yeneen bi dafa saxaloon weer wu nekk mu woor ko sallallahu alayhi wa sallam yeneen bi da daan woor léeg-léeg ba sahaaba yi ne dootu dog léeg-léeg mën naa toog lu yàgg ñàkk a woor bañ na xanaa dootu wooraat mi ngi noonu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam naam naam naam sunna waajiba mooy sunna muakkada moo tax fii doo doo fi gis muakkada waajiba rek lay wax waajiba mooy lu ñu feddali loo xam ne nii mënuñu wax na farata la waaye dañu naan daal julli du ko bàyyi mi ngi mel ne rek julli it julli it boo demee ñoom dañ naan sunna mu akkada la ndax dafa nekkul lu xel mën a nangu yow jullit tey la korité masalan nga jaaxaan sa kër jullit ñaa ngi julli nga jaaxaan sa kër moo tax dañ naan sunna la bu ñuy feddali mooy waajib mu akkada la mi ngi noonu bokkul ak nag farata bi nga xam ne moom soo ko deful da ngay ànd ak la nga xam ne moom mooy bàkkaar mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala aalam naam naam waaw alayhi salaatu waaw ala kulli xaal mooy liñ doon tontu mbokk bi rek fa ngay liggéey nekk na deux cent kilomètres ay da ngay génn dëkk jëm ci dëkk def deux cent kilomètres loolee da ngay gis ne day romb distance bi nga xam ne fuqaha yi wax nañ ko ci ne loolee ku ko romb mën ngaa tukki mën ngaa wàññi say julli loolu la ñuy wax ci wàllu googee kiy jóge ci dëkk jëm ca dëkk te dëkk boobee nekk deux cent kilomètres heure bu demee foofee ki jóge woon ci dëkk ba dem fa lañ naan dafa tukki yow mi nga xam ne da nga fay dem toujours it maadaama da nga fay dem toujours dañ naan kooku yaa ngi sax ci la nga xam ne tukki toujours mi ngi noonee su dee da ngay wàññi sa julli loolee da ngay gis na dara nekku ci ndax attey tukkikat bii nga yor ba tey nga xam ngeen ne problème mu wàññi julli ay yombal da caa am soo dellu woon leen ci mazahib yi ñoom am na ci ñu yegg ba ne waa ji demoon Angleterre masalan di jàng loo xam ne dëkk fa moom daal daa tukki si pour jàng bu fa defoon ay atit mën nay continuer wàññi julli donte ne loolu ñun d'accord ñu ci mazhab Maalik ak yeneen yi d'accord ñu ci waaye am na ñuy wax loolu almuhim daal li ñuy bëgg a wax mooy képp ku jóge ci dëkk jëm ci dëkk ci dëkk ba mu jëm romb na quatre-vingts kilomètres su boobaa dañ naan mi ngi ci attey tukki su ko neexee mën naa wàññi ay julleem wallahu subhanahu wa taala aalam waaw mu ne ndax ki nga xam ne dafay wàññi julli mën naa nekk imaam ah kay mën naa nekk imaam bu nekkee ci mbooloo moom mu jiite mooy gën a yey day ndax du am iskaal su jiitee ñaari rakk lay def ñi ci des ñoom mottali seen julli ñi ci des ñoom mottali seen julli loolu moo tax ba lenn ci fuqaha yi di wax ne maadaama musaafir bi mën na jiite def ñaari rakka yem ci waa dëkk bi mottali ñoom seen julli contraire bi it mën naa am imam bi mën naa jiite mottali julli musaafir bi wàññi julli donte ne wax naa la sànq ne mazhab Malik nanguwul wàllu googee mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam naam ci wàllu naam ala kulli haal bu dee li ñuy jàng ci téere yi bokk na ci téere bi mooy ci tukki may nañ ko mu dokkoor may nañ ko mu wàññi julli waaye fii xëyri masiya fekk la koy yëkkati du lu xaraam nga xam ne daa amoon as ndaw su mu bëgg a njaalool Kaolack wala Podor la ko tax a jóg lu xaraam la dafa jóg pour tooñi pour xeexi pour uti riba bu dee ni tukki bi daganul dañ naan amul droit wàññi julli amul droit dokkooram loolee moom la borom xam-xam yi di wax ci wàllu googee wallahu subhanahu wa taala alam naam waaleykum salaam wa rahmatulah barakaatu ala kulli xaal borom xam-xam yi loolee ñu wax ay quatre-vingts kilomètres ab tënk la ci li ñuy tuddee ay ay arbaa burut ak ay farsaq suñu koy xool mi ngi varier entre ay soixante-dix à quatre-vingts kilomètres doonte ne tënk boobu mooy li gën a siiw ci lu mel ne mazhab Malik ak yenn mazahib yi waaye amma lenn ci borom xam-xam yi ñoom dañ ne suñu borom dana safar tukki la la la la la wax kon ki tukki woon quarante kilomètres ki tukki woon trente kilomètres maadaama jóge na dëkkam dem na dafa tukki tukki ba nu mu mën a dool dañ naan am na droit wàññi ci waaye nag ñoom comme dañoo gis ne tamit tukki mën naa gàtt lool nit ki dem ñëwaat dem ñëwaat moo taxoon ñoom ñu tënk ko foofee problème boobu nag ñun ñu tombeek oto ak i avion loole moom dafa am beneen beneen lum ñuy dugal lu dul ne yombal na gu yàlla yombal dañuy jël yombal gu yàlla ndax bokk ñu li ñu nar a jàng ci kanam Omar ibnul Xattaab suñu borom dani su dee ne man ngeen di tukki man ngeen wàññi julli su ngeen ragalee yéeféeri fitnaan leen yonent bi di daan tukki ci jàmm wàññi julli Omar na ko waaw yow mi yàlla yónni suñu borom dani in xiftum an yaftinakum lazina kafaru su ngeen ragale yéeféri fitnaal leen lu tax ñun ñu nekk ci jàmm ba pare di wàññi julli mu ne yàlla may la gu leen yàlla may jël leen li leen yàlla may kon it ñun bu jëkk suñ maam yi pour ñu franchir quatre-vingts kilomètres dama la ko waxee daanañ def deux jours trois jours ah ñun tey yàlla may nañu waxuma quatre-vingts kilomètres waaye mille kilomètres sax mën nañ ko franchir ci une heure une heure trente avec des avions loolu kon yombal la gu ñu yàlla may dañuy jël dañuy yàlla may loolu mooy mooy mbir bi wallahu subhanahu wa taala alam ki nga xam ne dafay tukki su génnee dëkk bi su demee ba génn dëkk bi complètement waxtu julli dab ko foofee lay commencé wàññi su demee dëkk ba mu jëm su dee ne moom nekkul di yéene dafa toog lu jege ñeenti fan te mooy ñaar fukki julli mën nay wàññi ay jullem ba baa mu fay jóge su dee yéene ne nag day toog foofee loo xam ne ni day ëpp day mat ñeenti fan su boobaa dañ naan ko matalal say julli mais daal tànk tukki bi mi ngi yem ci ay trois jours loo xam ni daal manqué na ñaar fukki rombul ñaar fukki julli dañ naan am na droit di wàññi julli ba ba mu fay jóge bu fa jógee jinni bis it tànk duggul ci dëkkam am na droit di wàññi julli ba ba muy dugg ci dëkkam mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala aalam waaw naam wa salaamtul waaw boole boobu moom lañ jàng sànq ci gannaaw mu ni ki nga xam ne dafay nekk ci tukki bu dee dafa nekk fii jiddi safar mooy nekk ci digg yoon di dem su boobaa am nga droit di boole te loolu mooy li gën a siiw ci mazhab Maalik moo di ne kiy tukki nekk étape étape am na droit boole boo demee ba fa nga jëm nag su boobaa waxtu wu nekk dañ koy julli ci waxtoom allahuma lu dul am na yeneen mazahib yoo xam ne it jàpp nañ ne mën ngaa boole ndax di tegtaloo ne loolu yeneen tibaale sax mos na ko def ci gazwatu Tabuk waaye daal li gën a siiw moom mooy boole gi mi ngi nekk su dee da nga nekk ay étape mooy ñëw ngeen masalan yegg si ngeen fii balaa takkusaan balaa jant bi so da ngeen di dem su boobaa boole lu tisbaar ak takkusaan bu dee da ngaa ñëw nar fee fanaan su boobaa li gën waxtu nekk nga jul julli ko ca waxtoom mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam waaw mais wàññi gi moom moom waxtu yëpp la ñuy wàññi ba baa nga fay jógee su dee nekkoo fa di fa def lépp ñeenti fan wallahu subhanahu wa taala alam naam naam bismillah waaw waa ala kulli xaal am na benn xadis bu naan man xassala maytan fal yaxtasil wa man xamalaha fal yatawadda koo xam ne dafa sang néew na sangu moom tamit képp koo xam ne ni gàddu na ko mooy laal ne néew bi yëkkati ko kooku ne dem jàppiwaat loolee da ngay gis ne am na borom xam-xam yoo xam ne dañ ne xadis yi ci rot wérul même ña jàpp ne wér na it dañ ne istihbaab rek la mooy lu ñu sopp la waaye nekkul loo xam ne dañ ne fokk nit ki def ko waaye daal la nga xamee ne nii mooy la gën a not gisuñu woon lu bari ci saxaaba yi daan sang ne ba pare bala ñoo ñëw di koy baar mee la ñoom ñëpp ñu dem sanguwaat loolee mi ngi noonu doonte ne xam ne xadis sa ca rot la ca gën a nekk mooy imma ñu jàpp ñi nga xam ne dañ ne wérul wala ñi nga xam ne dañu loolu daal ak ak sopp la ndax xam ngeen bu njëkk ndox amul woon néewoon na trop léeg-léeg da nga daan sënge néew muy tis ci yow ay salte yi mën na la lal ñu ne da nga sangu ji boo ko jàppee nga jàppi waaye daal ala kulli xaal ci gàttal même bu dee dañoo jàpp wér na coobarew rek la waaye nekkul wareef wallahu subhanahu wa taala alam naam naam ala kulli xaal naam bismillah waaw waaleykum salaam lan ma waral naam lan ma waral bu ñu julli tis tàkkusaan ñuy wax ci suuf mooy li waral ñu koy def ñeenti rakka li waral ñu julli géey ci kaw mooy suñu yonent sallallahu alayhi wa sallam moom moo la yàlla yónni jibril alayhi salaam mu jàngal ko julli ne ko nii laa bëgg ñu jullee ko jibril jiit ñëw na jiite ko ci ñaari bis yoo xam ne nii mi ngi noonu jàngal na ko julli nga jàngal ko waxtu ñu koy def loolu it yonent bi ba mu paree jàngal ko xeet bi te mooy tàkkusaan kenn du ko wax ci kaw tisbaar kenn du ko wax ci kaw gée dañ koy xaaj ñaar yi la ñuy wax ci kaw yu ci des ñu wax ko ci suuf loole mooy la nga xam ne mooy sunna yonent bi alayhi salaatu salaam bi mu jàngale ci julli mi ngi noonu ci ndigalu boromam jalla wa ala aw yaakaar naa kon mbokk mënees na doy loolu di ñaan yàlla subhanahu wa taala yal na yàlla defal ñu tawfiq ci xamal ñu suñu diini wërsëgal ñu dund ko te nangul ñu ko wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain